خير الورى رسول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ñoongi sant yàlla di julli a sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne bés bi moom lañ ko jagleel ñuy sant yàlla moom mi nga xam ne moo ñu bind moo ñu moom te moo ñu yor julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nga xamante ne bi nu yàlla namee amal wala bi yàlla namee amal bindéef yi ci la yàlla fekkee ci leeram leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom mi nga xamante ne yàllaa ko njëkk a màggal bi mu diglee malaayka yi sujjóot ci aadama kon yàllaa ko njëkk a màggal ñuy sant bu baax sunu wasila del xaaji Mouhamadou Moustapha Mahdi Ilaal Muntazar moom mi nga xamante ne moo fi samp lii di sant bu baax sunuy waajur yi nga xamante ne ñoo ñu yar ci lii ndaxte lii duñ ko fi sos boobu ay tuut tànk lañ ba yàlla dogal tey lii lañu xam muy allahu muhammad laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon ñu ngi leen di sant di ñaan ñi nga xamante ne yàlla jëlee na leen fi ñu leen ñaanal yàlla yërëm leen te xaare leen ajana di ñaan yàlla leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam teew ñi fi des ñu leen ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant ñëpp képp ku fi teew di sant waa dëkk bi ak waa gox bi yëpp ndax te xam ngeen ne bés bu mel nii taxawal ko yombul waaye ñëpp a ci jàpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a ci jàpp ñu leen wax de gis nañ lépp te yàlla gën a gis lépp yonent gis na lépp yal na leen di gën a bi di gërëm bu baax jigéen ñi aussi surtout ñee ci waañ bi ndaxte waañ lu métti la te ñoom ci tàyyi mukk li togg di yëg waaye di ngeen xam ki ngeen amal affaire muy borom yëf yi ndax El Hadj Mamadou Moustapha moom wax dëgg yàlla mu tasar moo ko borom yëf yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom yëf yi képp ko liggéeyal bu la fayee di nga rus yal na leen fay ci kàttanu yàlla. ñu ngi sant ñëpp fàttewuñ kenn di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di nuyu baax aussi sunu sécurité bi di xay dalay lu xalaat sécurité. parce que ñu ngi jàppale bu baax ci organisation bi waaye yonent bi xewle ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm leen ñaanal bu baax euh, dafa am suñu benn papa bu baax suñu papa Amakodou Amakodou Diom yàlla ko yàlla yërëm dafa daan wax ne ku def lu baax yaa ñaanal sa waaye loolu dëgg la képp ku def lu baax yaa ñaanal sa bopp di sant nuyu baax aussi waa TV leen ñaanal yàlla leen yàlla gën a taxaw ñu ngi def liggéey bu am solo ci yonent bi salaa salaam parce que yonent bi nag international la ñëpp a war a siwal mbiram kon nag ngeen ci def liggéey bu mel nii ñu ngi leen ñaanal yàlla ngeen gën a yokk ba yëpp di jaay seen naaw salaa salaam di sant ñëpp di wax rek ne bés bi bés yonent bi salaa salaam la yonent bi la ñuy màggal màggaluñ sëriñ màggaluñ bàyyi màggaluñ maam Seydina Muhammad la ñuy màggal te loolu la jàngal li jàngal loolu léppam yonent bi la woon mu doon ku yàlla may waaye mu doon ku woyof loolu la fi bàyyi loolu la yare njabootam kii nii di sikar nii mu laay doomam la ñu bari xam nañ ko kii doon tëgg tabaloon mag bi Moustapha doomam la kon nag bu doon mbiri xalifa waa yooyu kon ñoom ñooy toog fii mais laaj ma Moustapha Sangom nag du du doxul loolu mission la yor missionnaire la missionnaire nag bokkul nag mbiri xalifa yooyu moo tax mu demee noonu moo tax ñëpp dañuy woyof àndandoo tolloo jaamu yàlla màggal Seydina Muhammad ñun ci loolu lañ yaree loolu lañu ñu xam ci loolu la ñuy dund moo tax képp ku képp ku ñu bëgg a nax rek woo ñu ci yonent bi parce que ëmbulewu ne jamono jii yonent bi sunna yonent bi dafa dafa dafa tuumaranke dafa dafa ràpp ba pare lislaam bi dafa tuumaranke loolu moom soxlawul jàng sax pour xam ko caaxaan yi bëri na pomm yi bëri na te yàlla foowul foowluwul daf ñëw bind ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtul boo xoolee pomm yi bëri na même boo teyee dëgg da ngay tuumaranke nii boo ko teyee ñun néew ñoo ci yow waaye dëgg dëgg rek lay doon te yàlla li mu wax du deñ te jamono bi yàqu na yàqu yàqute boo xam ne bu ci yàlla dugal loxoom xamuñ fi jëm foo caaxaan rek moo wate caaxaan kenn du xëy moo wate yàlla tuuti waaye yàlla du wanteer de yàlla du wanteer sunu góor bu baax gi ma doon wax ne yaa xaw ma sunu Sénégal gii mucc fi yamul l'islam bi dafa demee boor feebar waaye dëgg la de l'islam bi dafa feebar moo tax mucc fi yamul il faut nga nga dëggu am fit yàlla dimbal la si sinon doo jàll parce que dafa bëri léegi nga naan yàlla nee nit ne la waaye yonent bi nee na nit ne la waaye nga wax yonent bi nit teg ci nga ne yonent bi nit ñi ne teg nga ne diw ñuy bëgg te billaahi Seydina Muhammad mooy premier bi moom la maam Sëñ Tuubaa wax maam Alaaji Maalik Cheikh Omar Foutiyou mag ñi baax Sénégal ñëpp loolu la ñu wax ñëpp yonent bi lañ joxoon ndax mooy premier bi kon nag dañu bàyyi xel loolu dañu gën a jox cër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci lii la ñuy def dimanche yëpp ci at mi presque nii dañ ñii dañ dañuy dañuy def ñii dañuy aay bii dimanche li ba di ñëw keneen eh, aay dimanche di ñëw ñaaxaar moo aay magal yonent bi rek moo fi ne yonent bi moo nekk fépp partout kon moom la ñuy magal di jégalu kàddu gi mu ngi bëgg a ji te waxewuma xam-xam xëy na xool lay waxe waaye daal kontaan nañ ci ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp. yal nañu ko fekk ay jëw yu bëri bu jaay seen naaw salaa salaam li ñu déglu du man eh, sëriñ bi bu bu bu jëlee kàddu nañu delloowaat ci yàlla ak yonent bi bu fàttaliwaat bi ci yàlla ak yonent bi parce que naa ko bi dafa métti te yàlla li wax du dëñ kon nag bu ko bu jëlee ñu bàyyi xel déglu kenn ku ne booy ñibbi nga am la yóbbaale bu ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ma bëggoon balaa ma jox président national ma bëggoon jox monsieur le maire jox ko kaddu ci commune bi moom nag daf fii la def si dar bii yàlla def mu nekk suñu wala réparé gàmmu gi mosu koo tardé day ñëw joxe li muy joxe toog fële ren nag ma préféré jox ko kaddu. mu nuyoo mbooloo mi dalal leen monsieur le maire bisimilah. rahmaani rahiim. bi ñu suñu borom Mouhamad euh, suñu borom subhaanahu wa taala jullit yonentam Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew tey am mbégte lool teewaat gi ren ci atum. 2024. niveau bi nag dinaa ci jiite délégation bi nga xam ne moom ñoom ñoo jógee ci Dakar ak fu ñu mënta jóge ndax euh, da leen jara nuyu bu baax a baax fonk bu baax a baax jàpp leen bu baax a baax moo tax maa leen di wax ne salaamu aleykum képp koo xam ne yow nga fi ci délégation bi. danaa nuyu it commune Mbeelaka bi nga xam ne mooy Paxareen muy mag ak ndaw góor ak jigéen. alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax a baax ndax fekke nañu fekkewaat li nga xam ne mooy gamo bi di fàttali woon nag bu baax a baax. ki nga xam ne moo jiite woon euh, mbootaay bi ñu koy wax Serigne Madou Wam ndax yàgg naa toog fii muy waare may dëgg bu mu ca jógee itam euh, ku ñuy wax Daoud Ndiaye nde euh, defoon sibdaar moom tam lu mel nii def ko daan def sibdaar ah bu mu fi jógee ba tey nag vraiment amatul mais nag eh, ba tey ñu ngi fàttaliku bu baax a baax li nga xam ne moom nga daan organiser fii lii nag borom tànt bi def ko jar muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax képp koo xam ne jullit nga gannaaw yàlla yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa moo fi kon nag yéen ñi nga xam ne da am courage am fula am fayda ñeme li ngeen di def leen di sant bu baax a baax ndax métti na lool chaque dimanche ngay yëg seen oto dem biir dugg biir Sénégal di magal yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag fi li ngeen ne moo gën a wóor man mu ne meer nga waaye meer li fi ne man de ma gënal man li ma nekk tey ndax tey a chaque fois dama koy wax lu ñu wax de meer kay jii fii soo jëlee jànguloo ko meer. doom ji ñu ngi koy wat tey jii de wala borom diplôme bi bac bi certificat bi bac bi ak mun nga doon duñ la woo su ko defee jàngloo loolu moo wër loolu mooy dëkk te ñu leen di ñaanal lépp loo xam ne da ko jaamu yàlla lépp loo xam ne da ko ñaan yàlla mu nekk loo xam ne baax na ci yéen baax na ñun yal na ko yàlla nangu di leen ñaanal nag ah. bu ngeen di jóg à chaque fois ngeen di jóg maa di dem yal na ngeen di dem di dikk ak jàmm muy yéen muy góor ñi muy jigéen ñi nga xam ne ñoom laa jàkkaarloo waaye nag seen bi ah yow de yàgg nga ñëw fii village bi mu dugg di duul te daal di gis bu mu dem nga des bi euh, chaque année su ngeen fi ñëwee da ñaan ñaanal dëkk gi ñaanal commune bi loolu nag ñu ngi lay ñaan. nga ñaanal borom réew mi nga xam ne Sénégal muy Afrique muy adduna bi bari na yóbbu-yóbbu yëngu-yëngu-yóbbu boobu nag amuñ ci keneen kuñ ci yaakaar ndax yàlla ak ñi nga xam ne ñooy talal loxo yàlla ndax yàlla mu leen may te nag am nañ ci yaakaar bu baax a baax yéen ne su ngeen ñaanee yàlla mun na ko nangu yàlla ko yàlla nangu ngeen ñaanal commune bi rawatina nag ñaan ak dëkk bi nga xam ne mooy paxaareen képp koo xam ne feebar nga fi yàlla nga jóg jàmm képp koo xam ne yaa ngi wut jabar yàlla nga am euh, am jabar ak jàmm nawet la génni am na loo xam ne for nañ ko ci nawet bi ñu ngi ñaan jënd koñ gën nañu koñ lekk ci jàmm ak salaam du wutal leneen am na ñu xam ne ñu ngi ci école arabe yi nar di jàng nar a def examen ñi nekk ci français na a def examen ñu ngi lay ñaan itam nga ñaanal ñëpp ñaanal béykat yi ñaanal booleem julit allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. jërëjëf monsieur le maire kàddu yi rafet na ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi loolu te yoon yéen bi la yàlla yéen yàlla na ci yàlla jàppale da nga liggéey lu kawe sa jot di jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz ñu lay nuyu bu baax di la moom mooy yor suñu école arabe fële mooy jàngal suñu xale yi. waaw euh, ñoom itam ku baax la ñu ngi lay baax baax baax rafetlu teewaay bu baax di jaay Seydina salaam salaam euh, kon ñu jox président national mu waxtaan ak mbooloo. président national bi de ak bi doon xam tàmm ko dafa mel ni mu ngi bugg a wute booba daawul sëgg daawul jóg muy të waaye nag ñoo ko ñaanoon yàlla kon alhamdulilah rabbil alamin euh, Bachir dafa wax sànq ba ñuy tàmbale lii booba ñoom ay tuut tànk la dafa waroon wax tuuti tuuti tànk booba ak léegi fanweeri at yi waroon na teg bu baax a baax ñi ciy sant yàlla bu baax dafa gën di yokkoo booba ak léegi defe naa booba paxareem gi bu fi bâtiment amee bariwuloon ay néegu ñax kese la loolu rek loolu rek jaax na sant yàlla ñi ko doon def mooy borom kër yi ñu wër ñoom ñëpp ñu ngi fii ak seeni doom ak seeni njaboot ñoom jur nañ fi ñoo xam ne ñooña dem nañu ba ami doom donc seen sët a ngi fi ci biir mbir mi juddoo ci yaroo ci màgg ci muy lu war a sant yàlla parce que ñun ñi ñoo formé dañ ñoo dañ ñoo indiwaat formaté ñu defar ñu ñu doog a ñu doog a dafa def ñu juddoo ci biir ñun ñii seen waajur sonn ñu ci dañoo fekk mbir mi rek ñu dem ci benn wut ci ba nekk sax da ngay def xam naa dañuy euh, rusa wax ci kii rek mais dañuy jënd euh, euh, xoos la ci suuf mooy loolu li defee du noonu lii la ma kontaan ci nag bu baax a baax li tax mooy Ismaïla Ismaïla mi ñaaxar la dëkk Babacar Faye mooy papaam yaayam a nga nële kon moom bu juddoo ci lii fan yëpp mu nga suñu kër kontaan ci li ma gis ci moom ni mu jàppee islam ni mu fonk ko noonu walaay nas bi moom moom maa kontaan te mënu ma koo def ci moom mënu ma koo doon def sax ci sumay su sumay doom gis naa sax muy def loo xam ne sumay doom nga gërgër duñ ko def loolu ku mu doy mënoo ci sant yàlla leneen xamatoo loo bëgg kon nañ sant bu baax a baax xayraat te nag ñu bàyyi suñu xel ci jamono bi ñu nekk nii bu baax a baax dafa méngoo ak lu bëri ci loo xam ne élaaj daanañ ko wax wala daana ko junj xam lan la ñu dem ba teg ci suñu bët problème mu Israël ñuy wax nii ak maa palestinien ak yooyu loolu problème mu Mahdi la programme Mahdi la ci biir ndax xayraat bàyyi nañ ci xel wala bàyyiwuñ ci xel waaye nañ ci bàyyi xel yemeen gii ci dugg fa fa addis ba foofu la mu wax ne foofa la xeex bay jóge tàkk-tàkk ba lay jóge commencé nañu xeex ko ba commencé na fi mu ne ay yéefar ñoo jóg pour protéger islam El Hadj la woon na waa waa Amérique ñoo may garde ah dafa mel ni mu ngi xëy. xam nga ni mu ngi xeeñ ñu ngi bëgg a jo dimbale islam kon loolu bu fekkee ñun dañ ñu ko jàngaloon wala dañ ñu ko waxoon muy ñëw war nañ cee bàyyi xel nga xam ne ah suñu waa ji kat diggante lii la doon wax la doon di tano lu tee mu parce que ne dama la demee foo mu bett waaye au moins ñu ci li mu jàngal ñu xam ne saf nañu mais bu ñu nekkee nii rek gàmmu yi baax na magal yi baax na yëpp baax mais nag daf ñuy wax di fàttali lan lañ ñu doon wax lan lañ jàngaloon nañ ci bàyyi xel bàyyi xel bu baax a baax daana wax ne El daana wax ne dee leen seetaan télé dee leen rajo pour xam li xew ci àddina bi àddina bi fi mu nekk ni bu boobu nga xam ne ci la jarul kii parce que nit ñi moom wax wax ni wax ba ñëw ci joom ni dem jàll ci yàlla jafe na liñ leen wax nag nañ ca dellu nañ lañ ko gisal seen bopp ci tale ne ah attention góor gi lii la doon wax góor kat li kat affaire bi dëgg parce que cuune yu bari ñi mel nag ba mu daan wax ñu amee ñu ngi sikki sàkka boo demee ba gisatoo sa bopp ci tale bi nga wax ne lii moo taxoon muy wax li nañ ci bàyyee ak te na a góorgóorlu mbir mi nag ñun moomuñu ma ne pour ñëpp la maa di moom maa diw ñëpp la addina bi tout waaye nag dañ ci am chance boo xam ne ku ci nekkul amuloo ko amoo ko de kon ñun du ñu nekk koo xam ne euh, ku ku ku ñuy euh, war a yërëm nag déedéet ki xam def ak ki xamul dara dara waaw te ñun nag dañoo xamal dañoo xamal wax ñu li ci des kay gëm nañ li ñu waxoon wala gëmuñu ko bu boobaa nag seet déglu rajo seetaan naan télé comme la waxoon nga gis ne lii mu doon wax mu ngi nii wala boobu niru na ak lii mu doon wax doonte mënoo xam exactement lan la. bu ko defee yàlla gën ñoo dimbal yàlla yàlla jàppale bi jaay Seydou Diop Seydina Amady Sala Sala allahumma salli ngi sant yàlla xam ne yëgtabaa lislaam moo ci tànn ku ko soob te moo ci gindi ñoo xamee ne bi ko yàlla tànnee xam na ne yàlla moo ko tànn mu jël àq bi delloo yàlla boppam wéetal yàlla bañ ko bokkaale ndax yàlla benn yàlla rek la moo tax benn jant rek ka am jant boobu ngay gis mu fenk di soo dafay tegtale kennuk yàlla ne yàlla kenn la beneen yàlla amul ku mënul fexe ba jant bi nekk ñaar mënoo fexe ba baneel yàlla am yàlla lam yëlit walam yulat yàlla jurul te kenn juru ko moo tax bu andee mbiram day nekk mbir yàlla bu boo ci dugalee nit da ngay fàtte ki moo mbir yi kenn juru ko moo tax du demee noonu yàlla yàlla rek la yàlla mënul niroog nun ndax moo nu bind moo tax dara tiwu ko wa huwa ala kulli seen xadir yàlla booba mooy ki nga xamee ne moo ngay tàmbalee bismillahi nga xam ne li am lépp yàlla la bismillahi maa ngi tàmbali ci turu yàlla waa yàlla moomu ni mu am allah rahmaan yi kenn la moo yor àddina ak lépp li ci àddina ak ku ci àddina mooy rahmaan rahim yi kenn duggul àjjana si sa jëf mbaa si sa farlu gane àjjana tolloowul ak seen jëf maa ciy dugal nit ci sama yërmande mooy rahim nga yàlla kenn ku nekk xool bi mu la may ngay xool bu fekkoon na dafa la ne danga ma koy fay bu doon courant la facture ñuy joxe di nga koo xam ne du mën a fay facture xoolam koo xam ne tamit da ngay dégg doo ko mën a fay kuy xalaatit ndax diggante dof ak nit waaraate yàlla la yàlla boobu tolloowu la dara bu nee jaamuma ni mu waxee noonu nga war a defee amul kenn ku mu fa dugal ku dul ci kay wax ki naan yàlla nee na moom la fa dugal de waaye yàlla nee nga ne waaye nangam ci kay wax dafa xamul ne yàlla moom moom ñëpp amul keneen ku yàlla yi waxandool moo tax muy andi li tolloog nit pour yërëm ko moo tax muy defee noonu muy defee dafay tolloog nit ngir yërëm nit moo tax mu andi lu nit antan door ko koo jox xam nga ki nga xamee ne mu ngi gis li waral war na di xool lu neex yàlla mooy yàlla dafa def gumba pour waar kii gis comme que la yàllaa ko gumbaloo yow yàlla moo lay def ngay gis da nga war di xool lu neex yàlla yàlla bindul dara ci neen de bindul dara ci neen àqu yàlla nag ci fi ñu toll ci biir jamono li waral yàlla mer bay laaj nit ñi da ngeen bëgg ma yónni malaaka yi ñu wax ak yéen meru yàlla la ci lii temps bii wane jamono bii yàlla demewul ni ñuy xalaate ñun dem mel ni yàlla day nit ñu nun ñuy xalaate noonu di jéem a jaamoo yàlla noonu loolu réer la te réer ku yàgg la nag du tey dafa yàgg réer ku yàgg dafa dem ba réer gi ami moo tax ñu bari fi ñu fooge du foofu yàlla mënul deme noonu ki nga xamee ne dafa am nopp di dégg yàlla def na tëx ku dul dégg ndax yow mi am nopp ngay déglu lu neex yàlla ci am làmmeñ di wax yàlla ne walaqad wasalna lahumul xawla laallahum yatasakkarun man maa leen defal wax ndax ngeen di ma wax wala zikrullaahi akbaru wallaahu ya'lamu maa tasna'uun bon làmmeñ bi am na ku ko am te du wax yàlla def ngay wax kon del wax lu neex yàlla am na ku yor ñaari tànk di dox am na ku yàlla laaj joloo mu yëraam ndax yow miy dox nga dox lu neex yàlla yàlla lu mu bind rek daf ko teg ci service moo tax service yi misaal la service yi nga gis nit fonk ko nekk ca jox ko àqam misaal la ci li yàlla def la yàlla def moo jur yooyu yooyu misaal lañu dëkk bi mooy li yàlla def ndax yow sa jëmm mënoo wax ne kenn ka def même ñi la jur ñi nga deme nii kumpale ci ñoom ñi la jur ndax nit bëgg na am doom bu sax ndax ay jigéen am ku bëgg am doom bu jigéen ngir ay góor kon kii def mooy kii bind li jigéenal ko ci biir mbaa góoral ko mbaa mu ko sax nguuru ngaana doo góor doo jigéen moo tax ñetti jëf ñoo am julli dëkk yéefari dëkk am naa fekk góor jigéen buunu ngaa la yàlla def na ngay góor yow bay xalaat jël soxna yàlla teg na beneen góor mu nekk du doon góor nekk ñu naan yoom manul fexe ba doon góor te dafa yor jëmmi góor cër yëpp a na waaye yàlla moo téye cëram boobu yow mu jox la ko war nga kaa jéem a doxal ci ndigal muy ni na la na ci faratu sunna mooy tax mu doon lu dagan mooy tax mu nekk jàmm jigéen boo dem ci moom te di yoon dafa lay jural poson ndax yàlla bu nee laa poson la bu nee waaw saafara na laa jéeleen di alak feebar yu baree di am ci sëy yàlla bi mu nee laa rek la commencé doon feebar booy laal feebar bi dugg muy jigéen bi muy góor soxlawul àjjana sabara fii ci àddina mooy walla taxara si naa laa jooju moo andi muy def feebar ci góor jigéen bi kay def bon ki nga xamee ne dafa takk yi ndigalu yàlla bi mu boolee góor ak jigéen binde góor def jigéen liggéey ba ñu xam ne góor am na jigéen am na noonu la dem malaaka du góor du jigéen te malaaka ñu ëpp ëpp ñu doole te bu góor ak jigéen amu ca tout naka yàlla binde la mais doole góor la leen jox waaye benn malaaka jigéen ba góor du am du am góor du am jigéen jëmmale joo xam ne dara jëy góor la yor ci kantan mais boo ko xoolee malaaka day sosu kenn du ko jur bu ne xool yàlla ñëpp di noonu moo tax mu sos Isaa ibnu Mariama rek pour wane mu am ndey te amul bàyyi pour wane ne man yàlla dara teewu ma bu ma neexoon jigéen te am doom te du am borom kër moo tax mu indi isa dafa doon dafa doon jàngale donc di wane boppam ñoom dañu dem nag ba gis ne nit dafa so gis nañu ko amul bàyyi te coobare yàlla la ñu ne doom la koon manul nekk yàlla wa innahu taala jaddu rabbana maa ittaxasa saahibata wala walada cëru yàlla ëppante nag muy yore jabar bay am doom nee na bi ngeen ko waxee takkaatu samaawaati tatabattal nee na asamaan bi dafa doon bëgg a daanu wa tansixul arda suuf si xotteeku tremblement de suuf sëpp xotteeku lu ci nekk dugg ci biir mooy bi ngeen waxee a man yàlla am naa doom dañ ko jàng ba pare di ko maslaa nit mu naan doomu yàlla di tudd nit ku am ndey mu naan doomu yàlla dañ ko war a daw ay kilomètre waxuma nag muy wax nga dem toog ko di ko dëggal bi nee naa leen paan bi mu paan dafa yàgg ba am sët ñu bare bari ci neen lañu nekk bu ñu yéen ñi yàlla du ñaar yàlla yàlla du waxantu yàlla du wax du ko ما يبدل قولنا تيا وما أنا بسلام من الأبي وحدود لسوا دما جا دما تون نيت كو خامنا سما جام دما تون جام بون لي مو رek mo am dama ne asamaan doon na ma ba suuf su xotteeku te amal ba da tër fépp wa taxiru jibaalu xadda mu ne dëkk yëpp lu ko waral mu ne an daaw li rahmaani waral dañu ñu ne yàlla am na doom addina doon na tukki mu ne malaaka yi di sàbbaal di jéggalu ndax yàlla bàyyi booba jamono bañ ko waxee wala addina doon ya nga jàngalu tool noonu alxuraan addu ko nga dem di ci d'accord yow nga ne jullit nga jàng alxuraan dem na am nañu diine ñiy wax loolu te ba ñu ngi wax wax jooju moo tax yàlla doon laaj tax bi ngeen bëgg ma yebal malaaka yi yàlla xam na ne parewnu ndaxte ngeen bëgg ma yónni malaaka yi dafa xam ne parewnu ndax la taxoon mu wax ba junni at ak nangam aaya ba la taxoon yàlla wax ko nu ngi ci mu nga jëla naam xan yéen suru la ilaan yaati wul malaykatu aw yaati rabbuka aw yaati baxdu ayaatu rabbika yow ma yaati baxdu ayaatu rabbika laa yanfa'u nafsun imaanuha lam takun amanat min qablu yàlla dafa am na parewnu ba tey ñu ngi koy wax ni jullit yii jàng ba pare ne sax ay sëriñ lañu gis naa leen ca daara joojo mooma mbooloo ñuy dëggal ndax nit boo ko uyoo ci li muy woote yendu ko da nga dëggal ñoom ñaar merloo yàlla du yëbbali jullit ñu ak yonent bi dem ànd di weddiwaat yàlla di ànd ak ñi weddi yàlla ñi tax tuuti àddina tukki ñooñu ñoo merloo yàlla moo tax il faut yàlla bañ melam maa duy du dara maa duy mu doon mooy lii may wax mooy waral wax ji boo xamulee lu waral max di da laaj naan bu ñëwee ku ci luul la max di noonu moo tax nit ñi duñ ko ku mu def woote ne max di bu ñu xamoon programme bi doo ko woote te même boo xamoon programme bi ku ko woote doo dem dafa am programme li tax Mahdi daa mënul am ba pare kenn du ko yëg Mahdi mënul dund ba dee te lii yàlla téewul jant bi mu am ñetti guddi du génn pour nit ñi xam ne yàllaa ngi waaj bu jant boobu génnee saw imaamul Mahdi door a taxaw programme la keroog kuy nit di nga xam yàlla jinne nañ xam yàlla ñu bëri na benn ñu bëgg gëm ji événement ba yàlla nee na laal fa u nafsu imaanoha lam takun amanatun hablu keroog ñi nit dina bëgg gëm nga du ko jariñ maay bay day ko dafa déggoon ba pare teg maa moo tax du ma nangu gëmu kooku ki may nangu woon mooy ku réeroon xamul lu xew ñoo ñoom bu ñu tuubee njëggal leen mais am na ñoo xam ne seen gëm dootuñu ko nangu seen jëm ci baax kenn dootu ko nangu aw ka dabat fii maa ne ba nga gëmee te bu njëkk ba la nga liggéeyoon ci lu baax boo baax mais bii jamono du ma nangu gëm du ma nangu ñu dama leen mooy yombal xisaab xasara bari daal si xisaabuhum jàng ngeen suratul anbiya yi suratul anbiya yi dafa ne xasara bari naa si xisaabuhum waxum fi xamlatin mufridun maa yaati min rasul min maa yaati min zikri yastamaoo biha waxum yàlla bon min zikri rabbihim amul benn nit buy ñëw di fàttalee lu ñu koy déglu mais lañ koy déglu déglu dafa ànd ak ñuy fo moo tax fo moo nar a alal àddina fo parce que yàlla dafa ne binduma ci leen leen ngir fo dama leen dundee ngir ñu jaamu dem na nag ba fa ñu jox doole te xamuñu lu waral limaamul maa bi fa lañ jox doole na ngeen seetlu li waral maa bi jaamu foofu léegi bu njëkk ba amul woon million waxuma la ay milliards léegi fo ay milliards lay maa lii dafa am li tax mu ñëw bu ñu déggulee li tax mu ñëw même wax si daganu ci yow ndax da ngay réeral nit ñi nit ñi kenn bundu leen moomoo leen doo leen rey doo leen dekkal doo leen dugal àjjana doo leen dugal safara moomoo kenn da ngay nit ñi nit yàlla doo nga xam ci gën kon booy wax del wax xam baa nga noppi waaye max bii maa bii rek rek ku mu neex gën nga max di yaa ngi koy xaar laa yaa ngi ci moom ba pare mooy yàlla kan mooy xam max di ci mooy booy mooy yàlla kay bu wax max di bu ko wax parce que gëmoo meru yàlla ci mooy yàlla moo waral muy indi max di kon nan ngay gëmee max di ba pare ne moom ngay xaar ba pare di mooy yàlla jigéen bu lay daganul yàlla dafa dàq góor ak jigéen ku jigéen ki day bañ ku ko takkul moom ku jigéen bi ci boppam dafa war a daw ku ko ku góor ki tam daw ku mu takkul moo tax mu ne wala tax rabu si naa yéen ñaar ñëpp laa wax ku nekk na nga moytu li ma tere jigéen nay moytu góor fekk takku ko jigéen góor it nay moytu jigéen fekk takku ko wala tax rabu si naa innahu kaana faahisatan wa bii la nee na mooy nee na ngay ànd ak jigéen ko mooy caay caay mooy yoon wu bon nañuy wax wax bi amoo droit dajale nit ñi di wax leen lu dul yàlla moomoo kenn bindoo kenn doo fay moo leen moom waxal wax bi ni ko yàlla waxee amul na it aw. naka la yàlla waxee nga ne da ngay rus nit ñi bàyyi yàlla ba yàq ñi ñëpp lépp leen nooy tekk nga ci taa bi carte rek te carte moom sàngara ñoo bokk benn aaya si fi mu dikkee alxuraan tout carte ak sàngara ànd boo bàyyee sàngara bàyyi carte boo bàyyee carte bàyyi sàngara te taa bi carte bi def international la li waral wax bi jaam léegi ngeen ko carte bi léegi international la football bi bari fut la tudd karta la dañ siy kart même kii football ngay alali karta lay إنما الخمر والميسر والأنصار والأسلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تبلغون bi ñu ànd ak Mamadou Moustapha Ngom nag ñàkk xam ni mu tëddee ñu ñëw di dajale nit ñi lekk naan sikar yëngu dem ñibbi mission bee taxoon di ñaañ du woon sikar de sikar bi nodda rek la bu ñu noddee ba nit ñi ñëw da julli julli bi mooy wax li yàlla wax ak rasulullah moom lay dox moom la fi baax moo ko waxal boppam bind ko practique ko islaam kitaab bi laa ko sunna kafaakum billaah loolu la fi baax comme moom la fi ba nag nañ koy gëstu mu leer nay leer ma di dara waralu ko moom wàcc Isaa ibnu Mariam moom jàpp jant bi ñetti guddi dara waralu ko lu dul mer yàlla dan moo mer ma lii ñu nekk ñun karta karta léegi ñëpp ay kart portable yee tax ñu barke ñi kart ak yooyu ñu samp ci koñ bi ay kees ñu bari ay bejjaaw ay mag yu bejjaaw ngay gis ñu taxaw booba di jéem a xool di wut lu ñu gañ gerte gerte booba bokk ni ci li melloo yàlla ba muy laaj ndax da ngeen di xaar ma yónni malaaka yi dafa xamoon na parewul te ki dernier yonan mooy Moustapha Mouhamadul Amin saadiqun masduhun musaddaqun ruwul amin Seydina Mouhamad di ruwul xadim amul xud ruwul xudusi buy amati yàlla di wax loolu war na ñoo xam ne lu jariñ kenn moomoo kenn te it yàlla nga war a bàyyi di wax ngir yàlla waaye li yàlla waxoon ne diina yuballighuuna risaalaati laahi wa yaxsawnahu wa laa yaxsawna ahad illa llaah wa kafaa billaahi hasiiba ñi nga xam ne dañuy joxe la alquran ragal ñu sax ku dul yàlla yàlla mooy régler seen biir yàlla du moroom bi dara li yàlla man kenn manu nit ñi nag dañoo jënd àddina jëndee daraja jëndee jëndee ay bànneexi bakkan yàlla ñu bari loolu la ñu def mu ne. même boo doon jàngalee dem ëmbal do dañu war a tëj école bi baa ñu ut beneen nit yow dañu la war a dàq te bu lislaam taxawoon nañu la dóor ba pare def loo xam ne comme da ngaa jàng loo too ko def ci àddina. bi bii nag masala rek ñoo naa diine yi ban lislaam bu ñu ko waxee dëgg di nga xam ne lislaam amul football bii kay bu amee kër yi kenn doo gis nit ci bi ku demul ca terrain ba yaa ci terrain yi bu bal duggee yuuxu yi dañuy mel ni koo xam ne doo am lu xew ndax ay yuux ndax rek xanaa xamoo ne football bi sa awra bii génn rek bàkkaar muy muy tubay bi rek tubay bi nga sol rek mooy jëkk a nekk musiba waxuma nag nga faat waxtu julli faat loo ko mbooloo kenn du julli même ñi seetaan ci kër yi duñ julli ak julli ni mu toll muhammadu rasulullah walasina maahu asidda wa alkubar ruqamaa baynahum mu ne yonent ak ñi mu àndal dañuy soxor su ku weddi yàlla dañ siy tar wexxat la ñuy def su ku ragalul koo xam ne da nga weddi yàlla waaye taraaxum rukaan sujjada nee na boo yor xoolee jullikat la ñuy doon ñooy waa kër yonent mu ne ca tawreet jullikat la te Moussa sa Linjiil jullikat mooy Isa sa alxuraan jullikat moo tax julli moo gën a foor mooy ahsanul ibaad jaamu yàlla gépp julli ci gën a foor yow nag li gën a ngay doye da li biir da rek biir da naan même am na lu ëpp doole julli waxoo dëgg manul ne manul ne julli rek na yonent bi jële ci kaw pour wane ne moo gën a kawe tout julli rek na yonent bi yéegee juróom-ñaari asamaan bëtt juróom-ñaar fukki junniy kiiraay ci guddi gi dem fa yàlla fa ka yàlla woo mu toog julli googa rek la jële ci kaw li des yëpp fii la fekk yonent bi ci suuf jullee ci gën a for mooy ahkamul ibaad julli boobu léegi nga di ko doyatal naan même si wirda naam boo gisee yàlla na wala si du laay nañu bàyyi nañu bàyyi kere nañu bàyyi li ñuy def di falsifier aay yi tëgg benn aaya rek dugal ñoo xam ne jaay la ñu xamuñu dara nga naan leen même si kër gën a boor julli sax nangam ba ñu doyee dal julli di wér da rek biir da du farata du sunna même ngëneel rek la kenn du la ko laaj boo duggee bàmmeel li ngay laaj mooy yàlla yërën julli bii nag mooy li ñuy jëkk a réglé bala ngaa jàll siraat su baaxee nga jàll su baaxul kenn du laaj koor kenn du laaj asaka kenn du laaj aji màkk bu julli bi baaxul foofu ngay jaari dem sama doo jàll de doo jàll première pomme doo jàll julli bii julli rek ngay feebar di julli boo demee ba mënoo taxaw julli nga toog taxaw wéeru boo demee ba mënoo taxaw wéeru nga toog julli soo demee ba mënoo toog julli nga toog wéeru bu demee ba lépp mën a tourné nga tëddal da joor mbaa càmmañ mbaa jaaxaan di julli julli wàcciwul nit ba mu dee am nit ñi ndox ci réew mi naan julli am na ko gën a xool am ñu leen sa topp ci Sénégal gii nag lu ko dinaa yàqaw mi sunu Sénégal mu ci fi islam bi dafa demee boor feebar nan ngay naxaay nit di leen campagne di nga xam ne mooy tax ñu ne julli sax même boo dul julli li des yëpp du baax koo rek asakaat waxuma ay sikar sikar mën na remplacer julli sikar ngay yow jàngoo pare te jàngoo sunna pare na mooy yàlla dogal yàlla sunna mooy yonente bi li mu li mu li muy wax sunna mais ngëneel julli ay sikkar ngëneel la même bu yàlla ne sikkar leen ni julli àttee ko sikkar nga nax nit ñi julli di yër rek dafa mën a julli salaam salaam da bu nit laa julli tisbaar mu julli ñeenti rak julli tisbaar ba pare teg si ñeenti rak sa yaram day aram safara yonente nee na sallallahu alayhi wa sallam te même yonente kenn mos ko bàkk ci kër daawul noppalu ndox xol bi du dal ci kar rek mais yi ñu àtte mooy julli moo tax ñu ne gis nañu da doon julli guddi ba tànk yi neew yi ay sa bés mu ne ay sa ne ko yonent yàlla nee na jéggal na la bàkkaar bu njëkk ak bu mujjee te yow na nga sonn ci wàllu taxawaay muy taxaw di jullee bàqara ba mu jeex mu ne ko afala akuna abdan sakur ndax dama dul doon jàmm buy sant damay sant julli nga déggal xooma dégg ko fa wér la addina la bu nit di naxe yow nga xam ba pare noppi complice nga or ndax yi ñii war dëkk bi nii dina xale góor yi ak jànqa yi li ñuy wax du alxuraan du hadiis te du yoon nit booy yàlla atiku naa wa atiku rasul topp yàlla ak ki yàlla yónni waxul nga topp kenn ak ka nga xam ne mooy digle ne toppal yàlla toppal yoneen ci ni mu jaadoo waxu leen nga mën a topp moo tax ñu ne sëriñ sëriñ bu xamul alxuraan xamul hadiis du sëriñ du sëriñ de xanaa sëriñ seytaane ak sëriñu biddaa man da ne mu ne bala ngaa julli takkusaan nga julli ñeent ñeenti rakk parce que bu ngeen seetloo ni ngeen duggante ngeen jël oto ngeen jàll bii risque bu nekk mu ngi ci mu jaral leen ngeen ñëw par dimanche bu ne fi ngeen war a noppaloo ngeen jël ko jox jur neen mënoon ne mënoon ñoo ñëw di ñu wax l'islam pire kon lu ñuy jëndee dafa jar a bindoo di dem Mamadou Moustapha moom di jiite caaxaan te gàmmu moo doon wax jar nga jaay sa mbuba dafa am lu tax tante bii mooy mo moo di atum samaan tante bii ngay ñëw bala ngaa jënd bàkkaar bu deñ xanaa nga defaat day am yéen mëne la ba pare yéen mëne bi li koy waral mooy wax dëgg dañ koy wax dëgg li ñu si kar rek lekk naan manu lekk parce que dañu ko moo mujje taxawal di yeesal li fi ba dafa am mujje di duuna kii mujje mooy Mahdi moo waral missionnaire bu yàlla gërëm mu door koo taxawee boo taxawee comme ni mu la sant yow loolu day continuer moo tax mu naan suma ginnaaw ginnaaw mooy du ko fekk sama ginnaaw di yàqu du ko fekk mais mooy day sax yore toog ci addis nee na groupe boobu duñ ci dëgg ba mbir yàlla ñëw te dëgg mooy alxuraan yonente bi wax juróomi addis ci groupe ba nee na ñu la ñu doon sax du ñu bari waaye li ëpp dëgg leen di noonu lépp ëpp leen dëgg mu ne ñu baax lañu waaye si biir ñu bon te bari ñu baax si biir ñu bon te bari na ngay jëfee ne yàlla yàlla moo tere nga di ko def da la gore yow yàlla moo dem ngay lekk di naan mu rees nga mën a dem jënd ko lekkaat càkka bi di dundal yaram bi ban yaram bi mën a toll xanaa même bu dul dara nga jaamu ngir loolu nga war a jaamu ngir àjjana ay safara da nga war a jaamu moo la bind li nekk ci yow yàlla moo ko ci nga gore ba tegu la ma doon bëccëg bu lëmbatoo alhamdulilah dama wax leen léegi kii dox yàlla moo la gën a lay bopp fa mu dox yow ngay xalaat ku ko dox loo di yàlla kon del xalaat lu baax Mamadou Moustapha affaire am dañ ko programme ba pare mu door a dem programme la kenn mënu ci tous lu yàlla dogal la jaarale ko ci moom ba foofu loolooy am kenn mën ko dindi parce que bi ñu yàqu dem falsifier ko di falsifier aay yi di indi yonente yu bees di fexe ba wax a wax ba ñu ne yonente la indi nag gis yàlla gis yàlla ma manu ne wax bi moo jëkk araam gis yàlla wax bi dafa araam wax bi ndax boo jàngee alxuraan bi yàlla dégg ba pare yeneen ne jamono yi ñëw wuutee dina bari waaye bu boobaa jàpp leen ci alxuraan ak sama sunna dana ngeen ka nank ak bëñ yu kaw yi ba mu dëgër ndax du neex a téye su boobaa yeneen bi wax ko kon san mooy attekaay bi lu alxuraan lu alxuraan wax Moussa si juróomi yeneen yi gën a for la bokk ba muy ba nga yàlla wax muy jëkk di jëkk di wax muy jëkk ndax yàlla buy wax ak yow sa cër yëpp ay jëkk tout yàlla du melu ni nit Moussa di dëggee yàlla ci kàddoom ba ñaan ko Moussa kàllaamu daa mu dem ba am bés mu ne yàlla dama la bëgg a gis ma bëgg nag gis la comme ni ma lay déggee yàlla ne ka lan masul am mooy te du am mooy lan lan taraani la wax ci alquran mënoo maa gis du démb nag du tey te du suba lan taraani mu ne ko bu fekkee da nga bëgg xalaat na man nga maa gis kun sur ilaa jabari xoolal ci dot woowu ma wan la ndax man nga maa gisam de yàlla wàcc benn doj du toj ni ma sëpplosee Moussa xam te lu tuuti la yàlla ne ko moom laa wàcce matul sax àndul doj du toj mu xam ba mu xëmmale ko dana yàlla duub naa li ma wax te kuy gëm maay sa ji duutuma ko wax yow dog yeneen doo dara même doo bi gis yàlla te nga gis yàlla gisal gàncax yi si kaw te gis asamaan yi juróom-ñaar kay ay malaaka la yow gisoo malaaka yi gis yàlla waxuma loolu jinne yii nekk fii ñun jinne wa maa xalaqtul jinni wal insi xam nga ne jinne ngi fi yow mënoo gis jinne di mën a gis yàlla mbaa nga jinne mu jommal la nga dox yéey saga boo gisee yàlla foo jëm nañu bàyyi ñuy wax ko bëgg a daraja rek ndax nit ñi rek nga doy say jaam di nax li waral yàlla naan da ngeen ma yebal malaaka ba man yàlla ma ñëw xam ngeen ne du neen dañu parewul lii ñuy wax moo indi max di daam bu amee lépp dina leer ñuy wax yi tout lañu laajte te kenn du ci taxe te ku mu rey safara nga jëm maa ngi nag du dem te dëkk du taxaw ba kenn muy ñëw loolu la Rasulullah wax ci juróomi hadiis mu ngi nii ñi leen ñi leen wax bokkuñu juróomi hadiis la groupe bu taxaw ci dëkk muy alxuraan ak hadiis nañ fi nekk ba mbir yàlla ñëw hatta jaa amrullaahi wa hum kazaalika ba mbir yàlla ñëw fekk leen ci noona hadiis la groupe boobu dañuy wax yàlla ba keroog yàlla def lu mu looloo waral gàmmu yi nii am doole ba pare mu dem mu sax parce que moo ko wax dane moom la ñu jiital moom la ñu xamal ndigal lay doxal waaye sama ginnaaw mooy day am ginnaaw ginnaawam day am moo waral gàmmu yi doxuñu pour ay campagne doxuñu pour ay gàmmu yi dañuy dox pour mission bu ñu fal dañ ko fal jàngul ci kenn Sénégal kenn du sëriñam ne sëriñam moo nu ko wax mooy Seydina Mouhamed te ku weddi na yonent bi man a jàngal ku fi ne danga laaj Muhammadul Busiri yu moom mi dem ci bàmmeel yonent bi di ko tagg ci buur la moo tax maam Alaaji Maalik di ko jël di ci wax ci jamono mawlud fukki fan fukki guddi mu noppalu génn guddi mawlud ndax boo demee ci buur la ba Muhammadul Busiri yu demee di tagg yonent bi ci xabro moo tax ku nekk fii lu yëkki nga rek tawxiid xamoo dara bida moom la dugg si bu ñu tàggoo yonent bi dafa bokk ci ci alxuraan est-ce que dafa bokk ci hadiis te sax xam nga bala ko doon defee mooy ngay tàgga yonent bi nit da nga waroo tàgga ndax loolu bida la waaw bida kenn waru see topp di tiitaru nag di sol ay yére loolu nit di fitna ak seen waaxu mbure yi du xam-xam. wutulu gannaaw yeneen kala dem ci xamroom ba mu demee di way ba yegg ci bunta fa mablawul ilmi fiihi annahu basaru teer booba moom la ñu génnewaat dafa nekk ci taay yi bii moom la def ba mablawul ilmi fiihi annahu basaru wa annahu xayra xalqilaahi kullihim xam nga boo demee ci bur la xay xam nga góor ji nag bind na mi na xayrul anbiyaa yi ba bu simu ne ba mawlawul ilmi ba mablawul ilmi fii ànd na ko baso ñetti yoon man te jàll yonent bi moo ko gàgganti te boobu mu ci xabram moo nekk wa annahu xayri xalqilaahi kulli Mamadou Boussou ñu mottali bayit ba moo tax Mamadou Moustapha Ngom bu leen nee nabee ma jàngal defe naa am na dalil waaw am na teg nag Moustapha du comme kooku du tëdd rek tëdd na bi keroog ba ñu dugalee jëm ne aadama yi bi ci bàmmeel leer gi keroog la gën a taxaw Moustapha boo nee yaa Mouhamad moo la gën a gaaw sa Seydina Mouhamad bi yàlla bëggee wan nu ma mel nu ma amee kàntan nu ma gaawee nu ma amee sañ-sañ wane ci moom la yàlla jaar loolu moo tax mu jëndee rek ci boppam daal di koy tuddee Moustapha tuddee ko Habib Moustapha dafa mu tànn ñi ñuy tànn ci Moustapha bi waaye tuddee nga Habib ci jaxasoo man Habib mooy koo jaxasoo lu neex yonent neex na yàlla Seydina Muhammad bu siru nee na lu la neex waxal ci nabi gannaaw mooy yàlla li def def la neex waxal Seydina Muhammad kooku la Mamadou Moustapha Ngom di liggéey si de ndax mooy dernier yoneen ab yoneen te dootul am soo ñëwee yaa ngay liggéeyal ci alquran bii nga xam ne si moom la wàcc ba mu jeex loolooy mujj di alquran ngay samp jël na ko tekk ci dëkk jël addis dundal lépp doo bàyyi benn loolooy mujj di moom la moom la Mamadou Moustapha Ngom falu daf ko falu doxam bii di dox boo xam ne dafa àndul ndigal daf dafa falu ñu fal ka mu jël ndigal mooy dox bii dañu mag ñi jiitu woon dañ nga mag diw day dox ku bari dox la am yonente nee na maa ku bari lu dox la bu ñëwee dox ba du doxu neen man ngaa dox nii rek di dem di ñëw dox ba mooy mission day dem ci dëkk yóbbu fa siglu ba moo tax ñu ne siglu daabatal ardi daaba bii génn ci suuf si karam mooy loolu muy waxe dëkk bu mu dem ci alxuraan la leen gàggantee jàngal leen lislaam delloo si waat leen jënd leen ñii leen dugal leen ci gindeeku kooku mooy siglu daaba ba siglo si garam ba awalu siglu mooy alquran inna nahnu nasalna zikra wa inna lahu laqabisun sikar bi jëkk mooy alquran moo tax boo koy jàng jàngalu sikar sikar lay taxawe mooy yooyu koy jàng bu mu jeex ñu jëlaat bu dee weddi yi yonan weddi ñu yàlla du ñu ko jax te def lu bon day taxaw comme sikar te moo gën a gaaw ci sikar moo gën a tal alxuraan boobu da nga ci dem ba léeg-léeg doo nelaw da ngay toog nii ne gam-gam gis loo xam ne da ngay da ngay jimbi rek gis ka mu taxaw fekk looloo jennee leeru alxuraan daf koy defal bi du bokkoo la ngay bokkoo la ko am lii de nit dina jàng alxuraan bay jennee bokk na nag wàllu yi nag du leer gi yàlla alxuraan daf koy def ci nit bu dee dëgg la ci yow moom mi koy jàng ñu alxuraan booy jàng mu neex ñi rek boo loo neex def ba foog nga gis leer du la jariñ bi yàlla duggul ci benn jaaxal. li waral yàlla mer dafa bari. bi ñuy yëkkatee mbiru góor jigéen da ngeen di xam ne alxuraan nee na am na yonent buñ naan lool xeex ngóor jigéen moo taxoon ma yónni ba mu ñëwee dañu dem ba biir këram bu ba gàññee am na benn jabaram dafa bokkoon ci ñuy toppatoo mbiru góor jigéen bi ci diggante góor ñi ci ndëkk bi te moom jëkkëram di yonent moo doon lijjanti loolu fu ñu gis ak góor tàggoog seen sabo yàlla nee na yéen ngeen di jël góor ñi ay jabar bàyyi jigéen ñi yéen jaam ngeen ñoo xam ne sax jaam ñu mën a yàq ngeen ndax bi ma defee jigéen def góor jigéen ji ngeen ko muy ëmb. bu ëmbee la waral ma def ko xam ngeen ko gis ngeen résultat mu jur doom doom ji màgg ba sut bàyyi ba ëpp mu ne ma dem ba àddina nekkoon ñaari nit dem na ba nekk léegi ay million bon war ngeen a xam lan mooy jigéen kon lu tax ngay jël góor xam ne doom ba ngay ànd ak moom moo tax yàlla tudde leen musrifuun ay yàq kan ngeen ndax li ma leen liggéey góor jigéen ngeen ma a àndal doom am mais mënu leen ànd góor ba doom am kon yàqatal ngeen yàlla na mu leen meree ba mu leen di alal dafa yebal malaaka yi ñu dagg dëkk bi dañoo dagg dëkk bi yëkkati ko boolekaat ñoom yëkkati ko ba muy asamaan bi ginaar yeeg nit ñi bu doon dëkk dëkk ñu ngi dëkkal ci asamaan ndax kawe malaaka yi wël ko ci suuf sama ànd ak ñoom dañoo bon ba bañ leen di alal dañ leen boole seen suuf ba pare yàlla jël safara defal leen ko comme góor jigéen bi dem nga jëm yow wal xiyaam moom la ñu bëgg a dooleel tey ba ñu bari d'accord ne sëy bi mën na ne li tax yàlla mer balaa damay laaj malaaka ñëw ak li yàlla war a créé kuy mujjal yonent bi di Mahdi war a réglé addina ànd ak Isa ibnu Mariam léegi ngeen ko xam ngeen temps bii góor jigéen lañu yëkkati dem ba ay njiiti réew d'accord ci ba d'accord si sëy bi na mën nañ ko taxawal comme ni ñu doon boole jigéen ne ñii kii jëkkëri kii kii mooy jëkkëri kii ñu koy def si diggante ñaari góor mbir musiba ñi na xamuñu lu tax di ñëw nga gis kuy julli dàq julli julli kaata mais moo dàq naan butéel di naan rek boole kaa julli nan ngay jullee di naan innamal xamru wal maysir carte bi itam nekk léegi international carte. karta bii ñuy def nii mu ngi def léegi moo ñoo bokk benn aaya ñetti yoon la ñu dikk ñoo ànd muy karta ak naan sàngara ñetti yoon léegi mujj ñoom ñaara ànd addina tout karta la karta rek sàngara bi nag dama dem ba doon la woon mu ne bu balaa yàlla laa def musiba bi may wax li ngeen koy xamee mooy am ay ay tremblement de terre dina am garab yuy rey dina am ndox yuy rey bu boobaa nag dina am ma asif ma asif mooy aaratal na ko muy njumtukaayu poyo day bari lay màndee it day bari booba sàngara dañuy nëbal dara rek mu nekk sàngara léegi damay xool dem nañ ko sunguf muy dorob bii dem nañ ko ndox dem nañ ko saxaar mooy jees ñi tëg seen bakkan di xëcc ba màndi def nañ ko léegi saxaar mooy que ni nga xam ne moom mooy yàmbaa bi tuuf rek di tënne ngelaw di sànni def nañ ko tam ay doom def nañ ko tam di jiir mu ne bu demee ba nay màndee bari di ngeen gis musiba ku ko wax kii moom tànk bii day wax parce que yow mënoon a tànk bi tànk yonent la te kin gisul bi yonent tànk yonent yonent da cee saf la mu doon wax it dañu koy jekkal di ko wax lii la nag waxoon mooy tànk bi bon doone tànk yonent ni rek wax rek déedéet nga am na jamono yonente ne na islam bi dina dem ko tur wi rek fii def tur wi laa xam ne islam ila ismuhu tur mu ne école ya rek tariqa ya mu ne ismu mu ne ila rasmu mu ne day des ay ay façon boo xam ne moom ngay def ne man si laa bokk muy mbubb bi mbaa na mi mbaa kuus bi ku la gisee xam foo mu ne laa xam ne diin ila rasmuhu yonent bi ne wala xam ne alquran ilaa darsuhu alquran nag jàng ma rek fay des daa bii ñi mokkal alquran di ko jàng mu neex bañ ciy def concours du jeex du xaaj waxu nabi la woon alquran bi jàng ma rek fay des mu ne waaye nag wa yamuruuna masaajidahum xanaa bu naan zikrillah ñuy dundal jàkka yi rek te dama doon almadara sa xabral masaajid ngeen def école balaa balaa jàkk léegi ngeen bàyyi école yi di def jàkka yi rek jumaa yi rek jumaay mag rek mu ne waaye nag xanaa mun an fiti laay day tumurànke lool fàttali ne yàlla moom jàkka yi lu mu ci teg asaru ahli saalika samaanu ulamaahum aka bon yi waa jamono seeni aali min xum tuxrijul fitna wa ilayhim tawada mu ne même fitna ba muy kiris ba ñoom ñoo ko waral waaye dinañ leen ko atte ci ñoom lay delluwaat moo tax imaam Maadi bu taxawee responsable yëpp ay dem ku wér ne ku leer ne dem ñi ku leer ne mu doog a jóg moo tax wax loolu mu daan firnde ko ci ñoom lay jóge waaye ci ñoom lay dellu an an Alioune radiyallahu taala anhu Alioune moo wax loolu mu ne yonente bi moo leen xamal ne dina am jamono islam tuura rek kay des tariqa ya muy des de façon da ngay sol mbax ne mbax sama doom rek ñu xam fi nga bokk mu ne loolu rek la la tax ñu bokk ko duñ ci jëm dara. mu ne alxuraan da jàngam rek ndax xale bi mokkaloon bañ ko joxi million fii Sénégal ba mu ñëwee liñ ko laaj football la ne da ngay def football mu ngi jàng ba ba jot ci am nga ñaay jomante ba gañe ñu di ko may ay Sénégal ay million mu naan football la gën a bëgg laa xaamil alxuraan yi laa darsuko njàng ma rek ko de xamul dara te ay encadrement bi mu yoroon boo leen gisee seen sikër yi ñoo yoroon xale bi xale bi réer la ñu réer jamono bii nag du buy neex ndax moo raw xale pour dimbali nit ñi ci yàlla moo raw xale moo tax yonent bi ne ut naa min jihaadi sahir ilaa jihaadil kabir ñu ngi jóge ci jihaad bu bu ndaw jëm ci bu mag ñu laaj yonent bi jihaad boobu ban la ndax jixaat bii ñu def ci Hunayn ak jixaat bii ñu def ci Uhud beneen jixaat boo wax ne dina ñëw bu ko gën a tar ban la mu ne leen jihaadu nafsi ba xam ne nit ci mooy xeex ak boppam pour doxal li yàlla bëgg mu ne boobaa gën a boor jixaati xeex yi ngeen di wax yaa si yeeg reyante bi tout jixaatu nafsi yow te moo gën a si la ñu dajeel nag moo tax temps bi wax dëgg moo gën a metti jihaad parce que nga xam bu ñuy football nii ñëpp dem ci tëri doo gis kenn bu ñu dugalee bi ñu yuuxu mel ni ku dugg àjjana ma tax góor gi ma doyoo yuuxu mu ne waaw di ngeen kat faat di ngeen kat ci bëccëg boo xam ne di ngeen xam ne yàlla kenn ñu jàppee jant bi di ndax jant bi buñ koy jàpp day fekk mu nekk bëccëg nekk nit ñi nekk seen activité loolu la bind fekk ñu ngi liggéey di def seen i soxla ñu téye ko ñu bari di ñu xam li tax nag boobaa nag nee na buñ ko téyee benn niir mooy wàcc mooy la yonente na woon Usayba ma àddina àllaaxira mënul am yombal fi am bi ngeen di wax mënul am te duxaan bi amul fii ci àddina duxaan duxaan bi saxaar lay dund ci mais li tax yàlla andi ko tudde ko duxaan niir la mais niir bu mel ni saxaar la bu ñu jàppee jant bi courant bi day coupé su ko defee niir boobu bu wàccee mooy lëndëmal àddina ba bu la nit jigéñee doo ko mën a gis boobaa nag malaaka yi ànd ak niir ba mooy yow ma tunasil malaayka bi malaaka yi dañuy wàcc bu boobaa fii la ñuy dóor ku dee day dëpp ñi deewul nag ñooy laaj ñiy dee nii dëpp lu leen rey jamono boobu nag ba yàlla def loola ba ñëpp nag léegi xalaat ne am na lu xew courant bi coupé ñi doon tiitaru ci xam-xam xam ne ndeke du ñoom si la max bii doon a génne force sañu def dellu ci yàlla xam yàlla moo waral yàlla bi noon man na boo nee nag max bi xamoo dara ci programme bi da ngay tax ku mu neex maa bi dafa am programme li tax mu ñun ñoo ko def nangu ñëw tuub waxuma ne jabar jàmbur nag xam ne moom jëkkëram dong moo la baal nga defe ne jabari jàmbur la moo gën a neex kenn du ko làqu yàlla nee na man mii yàlla ma la baal jëkkëram di nga tooñ mu joxe canam ñu may ko jabaram mooy sunna nga dem ànd ak moom jëkkëram rek la mën baal su la baaloon safara ku ci dëgër gis nag ba dem nekk jabar jàmbur nga ànd ak moom ne da ngay jéem a def lu yàlla wax demal ne jëkkër ji dafay jéem a feeñu ndax sa jabar tàngam damay ñaan nga jéggal bi nga xam soo ko yàlla bonte bu rey rek ba pare safara nga ji bu la rey tamit doo demee te kon dañu war a moytu boobu Mamadou Moustapha dafa doon wax ba du ñu añ bu ñuy bu ñuy julli sëlmal gars yi bëgg a jaay mu ne mu ñu ne téye añ yi góor ji kat taxawagul ñi dem tàkkusaan julli defe ne dañ mu jógaat ñii door añ ndax yërëm nu doon lépp wax na wax rek léegi nag dem na dem ba boo ko jëlee ñu bàyyi la ngay xool mu ne nga ne wax bi dafa bari xanaa xamoo ne Mamadou Moustapha waxam ak suñu wax comme masra la moom bu doon wax ñu bari bari dañuy xalaat ndax nañ ñibbi tey am na benn waa Casamance bu mas a ñëw góor wax dal ci gouvernement bi nag ci wàll woo xam ne mooy dañoo jalgati dëkk moom ba ñu paree sa ëllëg sa sa poste ba la ñëw mu ne góor gi man de dama defe na woon bu ñu finaan guddi tey te teyoon jël suuf Casamance amul amul xamul xamul góor gi bu baax suñu wax ak waxam masalaa ndax daana wax ne bu leen ma toppandoo ñun nag xam nañ ko xam nañ ne duñ ko toppandoo moo tax li ñuy wax ni muy tàng tàng dafa am limite dafa am lu ñu sañ a moom dem ko moom ndax moom la ñu fa jox ko doole xamal nga la kenn du laal daa loo xam ne juróomi gaynde fii juróomi gaynde bi juróomi gaynde fii juróom fii ñu ne ba ñu ku la laal mu ne man noonu laa demee daa loo ne yàlla sama kanam yonent sama kanam yàlla sama ginnaaw du ma ragal xam naa li may dox daanaka wax ne waxoon ma fit man li may garde bu ngeen ko gisoon xam na man waxoon ma fit dañ ma sant ma pare garde ma pour lan ma aar kàddu dëgg waxloo ma ko ku bëgg ku bañ ba pare ñu taxaw ma kon dëgg boobu même boo amul lu lay garde li nga ci antan dee ko wax mooy tax ceeb bi ceeb bii ñu doon aña dagal jàpp doom yi jàmbul leen di rend ka fële ci waral bi fees a fees dagga dagga toj a toj bu muy bëgg a dee ngeen togg ab ceeb andi ay naan rax si léegi banaan ak pom nga lekkaat bi di ñu aar pour loolu jóg dañuy lekk banaana bi lekk pom bi ginnaaw ceeb ba naan ndox mu sedd dem ñibbi dafa jar a duggoon xanaa jarul jënd dindi sax waxuma yalla du mo du ko fa moo tax yàlla yi organisé gis nga li boko ko nuraalee ji fi xew du jar fi mais bokkul te dafa wara a feeñ comme da wara war a feeñ bokkul de tànt nii du tànti gam tànti dëgg la l'islam bi yalla la yoon a ñor yonente da daan liggéey bi mission bi ñëwee dañ ko tere liggéey mission bi rek te ta sam na jaay la mais bi mission bi ñëwee liggéeyatu góor gi daal wax ne dinaa amee oto dinaa yore bitik mais dinaa ci mos a génn nekk ci leneen booba yoragul benn oto yoragul benn butik moom la waxoon Alioune Dione nekk li ngay loolu dinaa ko yore ba mu bëri dinaa yor numéro oto yu bëri ay butik mais dinaa ci mos a génn nekk ci leneen. moo tax bii lislaam bi ñëwee yonent dafa bàyyi commerce ba bàyyi lépp léegi nag ne ci wax yàlla ak ñu ci àndal loolu mooy lii ñuy dox nii bu doon waxu kese jaru parce que nit ki du génn nit ñi yàq alxuraan yàq hadis daganal góor jigéen daganal naan daganal mooy yàlla ba pare bàyyi jigéen ñu sooretanoo subu araam lépp fooya kono ak tooññal ba pare di ñaawal di yonent bi ne xaa asaabiru fi aaxiru samaan ka xaabidu jamra nee na asaabiru fi aaxiru samaan bi diini muy ci jamane ci muñ si diine dina mel ni ku téye xalu safara yonent bi ko bu fekkee nag yow meloon ku téye sabara xamal ne da fawe diine mais diine dugg lay diine temps bi ku mu dugg ci mitin nga ne ba sa biir kër ba tey foofu ak bi am même loo wax wax yàlla bu dugg sa biir kër ñaare jom dina ko gis koo xam ne faalewul yàlla nga xam ne li am nga koy faj yow da ngay dëkkee wax bu dégg bëccëg am na yoo xam ne bu ko nit duggee sax day wax ne est-ce que biir kër ji la. kon dafa am ku moom loolu am na koy faj du ñun daa gi nit ñi dañoo màmba. te dox bi ñuy dox. muy bu bi na bëgg a andi leen hadis bi nga wax si ibnu hadis bi andi lii lii li ma leen du tànk bu jaarul ci ndigal te ñu waajaloon balaa yonan balaa ñun am na junni ak nangam hadis baa ngi nii bii laa leen bëgg wax lan moo tax moom lii xelal nit ñi bu ñu man di dox diine bu doon xel am njàng du am dafa am lu ne ci biir même moom day jiw waaye sañul wax lépp moom Mamadou Moussa Ba Ngom ne ñu ngi jógee Korog xalam baas nekk ko di gaynde am na lu mu seede mu ngi fi tournée boobu ku xam ne bokkul ak gàmmu dafa am loo xam ne kenn sañ ko wax gàmmu international la dafa am nooy waxe gaynde mi gaynde gi ni toog dafa naa dem na ci bokkul bokkul ak gàmmu de bi ñu defee loola ba jeexal ma ñëw fii alxames war a jóge fii tey dem ñaaxal bare ñu gàmmu gàmmu ko danañu turle ba pare defe naa ni waa ji doon seede keroog ne xamuñu si dara de waaye suñu kër yii suñuy soxla la xam ne li nga indi am na solo loolu ñaaxal la imaam ba fa nekk di jiite jumaa ba xam na ne lii ñuy yor bokkul ak ñun li wax parce que dañuy jàngaat bu fekkoon na góor gi du mag ji loolu mënul ne njàng mënul jomba njàng Mamadou Moussa Ngom mooy Mahdiyulaahi al muntasar mooy baxtiyatulaahi mooy xalifatulaahi mooy xujjatulaahi wa rasuluhu fil ardi ki nekkal yàlla di yonent bi ci suuf si Mamadou Moustapha Ngom la ku bëgg mooma ku bañ mooma kii jóge ci suuf rek la nit ak jinne isaa jóge asamaan Mamadou Moustapha Ngom paxareem bii laa laaj woon na ma laaj paxareem paxareem fii laa ko laaj une di wale man du nit moo may tax a taxaw yàlla mii mooy gërëm moo ma wan ne li ngeen di dox dama gërëm la man yàlla une semaine muy teg la mu ko ubbee rek a moo tax fépp taw ginnaaw balaa Dakar atam fii laa ko laaj woon Mamadou Moussa Ngom mooy max bi bi yàlla fal mooy mahdiyilaahi wa rasuluhu mooy mahdiyilaahi beneen jinni wala diggante nit ak jinne kooku mooy mahdi moo waral tantam bi du tante yii déedéet te it bu la yàlla boo yàlla joxee jaan ja Moussa mu bëgg a ragal yàlla daf ko ne téye ko mais sànq teewuloo ko du ma ko delloo jaan muy daal di dëgëral fit te bi ñàngoor bu taxawee dafa daw yàlla ne ka laa taxaw sanuriiduhaa siraatal ulaa bul ragal dinaa ko defaat yéen mais ci sax si nga téye ko max bi maa di rey bii ka yàlla rey ñu dugal ko bàmmeel yàlla ñu ngi xool ndax dañuy téye am dañuy daw ba mu saa ngay cëkk jaan gi yàlla defaat ka yéen naka sa sa njariñ la. si nga war a xeexeeg raw la ma ne Mamadou Madi bii doon wax ne man la diñ ko ci yàlla ca ñaaxal continuer mission ba dem ci sept ans yi Madi booba moom moo mu tëdd ci bàmmeel mooy Mahdiyu adaama bi ñu yàlla dig na dina ko génn ci suuf bu Mamadou Moussa Ba moom génn kenn du génn ndax poire bi ci Moussa lii tëj àddina delloo ko ci yàlla moo tax poire ba ca Moussa mooy yet wa poire ba ca Souleymane mooy jaaru ba il faut maa yor jaaru bi yor yet wi boo leen nag jaaseem boo leen tapi bu tapi booba woon sa Souleymane boo leen benn tabalaam ay mandre kam la waaye poir yu bari la boo leen ne diñ tamee ne muy max di boo leen na bir moom witu dem rasulullahi seydi abidin seydi awalin seydi laxirin nañ munu joom taar bi jàmbaar bi texe bi mbaax bi jëneer bi mustafa seydina muhammad jamilun jamalun karimun mukarramun barrun mubarrun السابقين سيد الاولين سيد الاخرين سيد الكونين والساخرين والفارقين من الظلم ومن ادب مصطفى لا يالا يك بغا داف في من داف نبي دو مجه بام فاري مبايي نبي هو مجه جات باي مخديو ak la muy àndal yëpp rasul lay loolu laa leen xamal tey gis nga boo nee max bi kenn du andi résultat bi buy nabi ku dul xayraat maa di li muy bari bari doole ndamu Seydina Muhammad la yàlla moo bëgg a ndamal yonent bi ñëpp xam ne moo jiitu moo gën te moo mujje te muy awala man am saxal arda bu bàmmeel yi ñu jëkk a génn mooy Seydina Muhammad bu ñu dugg àjjana ki dugg a dugg mooy Seydina mooy awala xuus xuus Seydina Muhammad moo tax xayraat war a fierté xayraat dañoo war a bëgg dañoo dund loo xam ne du du xam-xam du mbay du juddu rek la neex jigéen Mahdi yu boo xam ne tey dafay mel ni benn benn lumière la bu jóge ci nabi di niital gaa yi kan ci mu jóge mooy kan moom moomu kan nga jóge nga jóge du mooy Moustapha boo xamee dëgg-dëgg programme bi kenn du la gën a bëgg yonente te it yonente da lay jaral sa tout sa lépp parce que mënoon nag xam ne kay max di tax xamoo fa yonente bay kan mënul ne boobu maa di wala mënul du du dëgg maa di boo ko xam kan la foofu ngay gën a xamee yonente même li nga xam ci ma xama ci yonente bi loo xam ne jàng dañ ko ko jagleel ci axiru zaman mais ku ko gëm am nga loo xam ne kenn amu ci axiru zaman bii loolu moom maa bii moom nga loo xam ne mooma mukk te Moustapha newul ci yow manul ne ndaxte moom lañ ko mujj a faral mooy axiru mujj a di dure ñi doon yeesal maa bi yooyu tëj moo tax moo ci siiw ñu jox ko ñu joxul kenn ba pare def ko faral la mooy sixième pilier loolu lépp lu tax lu tax ci moom tànk bi soomu ne bàyyi naa ku fi bàyyi doomeem dalaay ji gosoo tànk dimanche yaa ko moom mais danga fay teg sa moomeel jox ko nabi samedi yaa ko moom danga koy waajal loyarant bi mooy réunion ba dimanche bi yaa ko moom fi nga war a noppalu nga dem jox ko yonent bi boo koo xam nabi parce que nabi rek la ñu war a njukkal sëñ naa Mohamed boo mooy njukkee parce que dant bi boo gisee suuf si di jëriñ nee na li ñuy na bi mooy waral suufu màgg day daw ba booba moom moo ñu ko yow bu la jàngalee dama loo raw nit ñi ci yont bi yow jàngal lo waxoo dëgg de góor yi kenn du ko xam amul biir rasul lay amul amul ñun ñëpp ñu yorante bi nga fi ñu digal yi ba leeram di feeñ ci yow te moom mooy wax bi mais waxuñu la leeru maa di yoon di feeñ ci yow nit ku yàlla may boo taxaw ne benn nit dama gis leeru yorante bi jigéen la te xamul lu tax mu door ko laaj ne ko ndax xam nga maa di te kooku sérif la sérif la Serigne Touré ko xam naa ko jàng naa ko mais bi ma laajee yàlla ku ñuul la ma wan looloo ma jaaxal ci maat yi yàlla yàlla ku ñuul la ma wan africain la ma wan moom ja moom laaj na war nañ ko mais óoluwul noonu baax mu bañ a riir lool écho bi day xaw a tar léeg-léeg ñetti wax lay jox moom moom nga xam ne ak ak keroog ci waxu ko Ahmed Fall waxu loolu leer yonent bi feeñ ci nit ñi fi ngay xamee ne am bi ngay amee yonent ci max bi mënoo ko amee fenn du jàng du xalaat du jaamu yàlla dafa am luñ ko jagleel ci moom boo ko téye te muy dëgg dina ñëw ci yow man mooy waxtaan ci max bi tudduma kenn dama ne woon am na lu seet jaan sëriñ ci max bi wax ci max bi booba moom waxul ne man la ma di ci wax lu ma ciy wax ba mu ñu xëyee dafa ñëw taxaw ni ñun lay ma di ko nuyu mu ne da nga defal li nga doon wax démb yonent déggu ko dégg wax bi waxul man nga defal ne yonent déggu ko beneen bi mu ne ma yonent ne sa ngëm day gën a da ko kon kan lañu wax du Seydina Muhammad nee nga jaar ci moom amoo yonent bi jaaroo ci moom déedéet xam ngeen yéen rek du neen man manumaa toog ak aalim imaam yi raati juma di ko jombal fi njàng manul lekk bañ na ba ba muy bëgg a dem dana yonente laa laaj nooy dafa xayraat yonente la kon moo fi ne bu ñu dof dof loola ba tànta yonent si ki nga xam ne mooy yeesalal yonent ñu luppee du baax ci ñun dañoo war a xam yonent bi kan la ñu topp ko may jaar ko ci yoon xam nga bunta bi nga jaar ba dem ci nabi boo ko bàyyiwul xel warewloo bunta ban lañ jaar ba dem ci doomi Abdoulaye ban bunta la nabi baabu laay ana baabu muhammad nabi baabu laay man maay buntu yonent yonent bi mooy buntu yàlla Mamadou Moussa ka wax yow buntu bi nga jaar ba dem ci nabi soo ko dul xalaat warawloo te it beneen affaire dafa loxoom ne yéen ñi tafsir alquran na ngeen wax nu Mamadou Mahdi dikki ndigal laa yor moo ma ko jox aw ma droit toog ci di wax leneen de lim ma toog ndigal moo may dimbali si yonente bi la nee nag ñi may déggal ñi jaayam jàng lu mu léeg-léeg bu ñu toogee leneen naa yor dañuy jàngaat kooku max dii la nee na kan kan mooy garanti ñu jëm max bi du Seydina Mohamed kon ku ma mission bi Seydina Mohamed mu nekk borom yëpp yi ngeen hmm? defe ne islam manul wàcc ba alquran mat ba mu matee na yonente bi ñibbi ki nga yeesal boo ñëwee doo doo wax l'islam kay àndoon moom l'islam bi ma doon wax sànq ba ñeen na ñi dañuy defe ne ñoom laay wax léeg-léeg ma waxtaan béréb nit defe ne man damaa xam programme ñëw di ko wax léeg-léeg mu dal ma am benn nit dafa ne man tey laay doon a xam ne ndekete waxoo nit ñi ndeke yow da wax rek yàlla tax man dama masa defe ne man ngay wax loolu mooy lislaam am na ku doon ñëw takk tënjeej dane nii la war a dem wax bu fekkee dëgg la ku ne dina ne moom ngay wax mu ne loolooy wax te kooku imaam la woon dafa ñëwoon ci takk ba bi ñu waxtaanee ba pare mu ne nii la wax bu war a demee ku nekk jël sa wàll waaye toogal yàlla mi wax ba lépp mat ba pare kenn du jël wàllam ca wax ja boobaa toogal sa jëndaloo ñu la déedéet jëndaloo ñu la yow bu fekkee ne dëkk boo dem xamoo noo war a waxe waroo jëndee wax mbooloo moo toog rek boo leen xoolee xam nga loo war a wax ginnaaw gàmm gàmm ñëpp a ñëw booba moo tax ñooy organiser seen bopp bi damay génn benn téere jàng ko semaine ñëw teg damay gàmm ba dem duma ko ñu wane ne du ñun ñun genn leer la ñu àndal moom la ñu nome mu diñ ka leer goo koy dox du ñun moo waral ñoom ñooy jombi du man leer goo koo leen di jommal du ñun l'islam biir dañu yor ku yóbbu nag naan seen jigéen duñu muuru ñoom gis naa dañu jox loxo ci jëne waaye teewul doomi Abdoulaye nee na dëgg dëgg l'islam ñun waaw waaw yenn jigéen ji ñu muuru ñoom dañuy jox loxo jigéen ñi sax nangam nangam bu ñuy way dañuy fecc daal daal yéen a xam Moustapha nee na fecc meeg joxe loxo beeg ñàkk muuru jéeg yéen a ma neex mu jeex te Moustapha Konté kenn konté wu moo compté lu mu ab def te jeex na wala boo toog di jëw nag nekk bi loo neex waxal nun la a na benn yéen la xaqatul islam te laay lu xayra moo ma neex mu jeex nag du góor ju doon wax naa bëgguma la ngir àjjana bëgguma la ngir ragal safara dama la bëgg rek loolu daan wax yonent bi te ñaan leen yéen ñëpp leen neex man yoon ma bëgg yonent bi rek laay ñaan ku may ñaanal ma loolu kooku mooy mag bi soo àndee moom xamoo daya yonent bi doo te ànd ak moom du dëgg Moustapha lay doxal tànk kon nabi war a feeñ jant bi la mooy saf sa muus mooy bëtt bu jóor mooy naj mu ni jóor Seydina Muhammad te képp ku dëggu mënoo nëbbu yàlla mënoo nëbbu Moustapha mënul nekk ku dëggu li xam nañ la kenn du fayeku te dëgguloo mukk ñoom dañu xam nit ñi bala ngaa fayeku dëggu nee na yéen moo mu dellu ne kuréel su tuuti du ñu toog ci dëkk mais ñi ëpp ci nit ñi leen di noonu kuréel su tuuti la wax ci la tudd yu at bii dem ni la moo tax xayraat loo mën a loo wax wax ma ne man ñoo gëm de mais ñëw bindu kooku leneen la. am yonent bi dafa am nu mel Moustapha ku mu bindiwul doo ku mu dàq nga dem te Moustapha nag du yëngu gis nga fu mu toog sa Medina boo nee nabi rek dafa mel ni yaa ngi Medina toog ci borom nabi boo ko oowee doon sa àddina tout dajale yaa Muhammad mu wul ñëpp moom mooy wane ku yàlla mooy wane sañ-sañ yàlla mooy wane gaaw gaar yàlla mooy wane man-man yàlla moom la yàlla dogal ci loolu moo tax du niroo kenn am na benn xale bi julli kenn xamul lu mu doon def dama damaa gént gis ko nañ ñëwal ma kawaram gi mel ni dafa tas pare mel ni urus ma xam ne gis na ko te ku ma na kii dina gis yonent ma weddu ko ndax melokaanam mais dañ ne benn nit ci xayraat dañ ma ne moo tax ñu wan ma yonent bi te dañ ne ma ñaaral gaaw wallaahi njabootu na bay di ñu toog gars yi leen na de xam nga nag ngeen di excité waaye warul ne na dëgër gis nga tàmm yi ngeen di ñëw ak lu mën a xew daf ko jar ndax liñ ñu defal mérite wuñu ko dañ ñu ko defal rek mais du mérite faveur bi dañ ñu favoriser nu war a gore nag ci doomi Abdoulaye Ibn Amina faye gi nii keroog ba ñu nee ñaaxar bi ñu jëm julli suba toog dafa gis kilifa yu mag Sénégal yi wàllu yu ngànna yi la ñu ñuy ñëw di ñu nuyu fii ba fële da dañoo ñëw pour siyaar waa kër yonante bi dégg du duñu kenn de waa kër yonante bi hmm? Babacar Sadé bu tax ñu xam na ak Oumar ak Ousmane bu tax mu xam Xayra kon moom bu lu may kan maa di bi ñuy jiwaat naan kële laa geeg juróomi junni at ak nangam du kenn Mamadou Moustapha Ngom bii mooy Mahdi Laay du démb du tey du ëllëg mooy Mahdi Laay te boo xoolee gaa ñëpp li mu junju kenn mënu ko ci xam nga yonente dana day feeñ sept ans moom ci biir sept la wax li ñu tax a yeewu tey bu ñëwee naan man maay Mahdi ba mu leer wax léppam ba pare ne ah xuus naa ci géej ba ndox ci baat bu ma dellu mu dem xam nga kon li ñu réeroon mu ngi bëgg a leer naa ci géej ba ndox ci baat bu ma dellu see li ma mag ñax ndax kuy dem bàyyi fii ndaw la mu diir ba mu ku ci gudd fan màgget day ne moo tax ne bu ma dellu soo li ma mag ñi soow kon même yow boo réeroon ca wax ja moom gindi na la tuuti boo yoree te kenn du ko def ci ñu woote mbaat bi mas na ne dina am ah ma dee bàyyi la nag samay doom bi bu muy wax naan ma dee bàyyi la doom bi dafa arrêté waat wax ba na leen muy wax fii ci Saalum waxuma leen waxuma leen waxuma déwén waxuma waxuma leen dinaa dee lu ko indi ma leen diraate bon même yow li la jaaxaloon ci daaba bi ci suuf jaaxal na ci mission jaaxal na li tax mu feebar de mu ngi la koy firil moom dong fi def moo tax ma doon min fenn du moom te it defe naa am na koo xam ne Moustapha Diop nee na dafa am lu mu ko jox bés mu bëgg ci jox mu ne ko man gis naa leen joxuma leen yow laa jox lu tax nga leen di jox ba pare ne lu ngeen di def mbaa ngeen di ko wax nag na ngeen yëg maa ngi di leen gis di leen dégg ñi dem ñaaxal benn jigéen ne du ma leen jaar ndax li tax seen góor gi man gis naa mu dellu sa fii du ma leen ko jaar gis naa ko mu dellu sa fii bon li ñu jaaxaloon ci max bi moom dem dimbali nañ ci pour nga am kóolute ndax neexul gëm neexul xam xam-xam bi dama dem ni ma yàlla lay ne mënoo nekk jàng mënoo jàng ba def ko ci njàng mënul ne déedéet boo tax mu ne jàngkat yi laa jëkk amal affaire ak borom alal yi parce que dañoo jàng te man jàng jot moo tax ñu may wet bi moo tax ñu am problème amoo amoo jàngkat li mu jàng rek la gëm te xamul ne yàlla newul ci jàng Moustapha daana wax ne xam-xam newul ci ay kàggu ubbi ba tëj mu ne déedéet xam-xam mu ngi ci tënnu góor yàlla yi yow nag yaw nga jàng dong ne mu mënu ngay jéem a jeex doo ko gis bu yàlla baaxee rek Momadou liy dimbali nit ñi leneen la mooy koo xamee ne du la jox nga sangu doo teg te mooy tere bàjji tere la ay garan door boo xam ne kuy sëriñ jaar nga ñaaxal. ku góor dee ba mu ñëwee te mu sa tool ba ko dangay ndax gëm nga yàlla déggal mandarga bi ndax gëm nga yàlla bu doon ku réer yor xam-xamam du wax loolu danga ne ndax gëm nga yàlla moom moom mu du mu ne gëm naa yàlla ba ñetti yoon mu jël suuf wax li muy wax jox ko ne ka defal ci ñett ñeenti koñi tool bi dem ci digg bi bu ngeen di bay di ngeen gis li ci tool bi ñuy góob ñoom ñuy ruuj ba ñu defee ba lay ruuj Moustapha Diouf a ngi dund dund Mbarkane borom tool baa ngi dund ba ñuy ruuj génn kéwél génn kéwél gi bi mu génnee Moustapha Diouf topp ko mu dem ba dugg ci génn ngeer bu ndaw naka la gànnaaw ko Moustapha egg si gisul dara te bunt ci lay jaar ñëw ci suuf bi mu ngeer gi dem. dul màkkaat woo ko Moustapha ñëwal góor gi waxoon nañ nañ gis li li la ci tool bay di lekk di lekk di góor di lekk ba mu nekk góor gi rek jamono léegi trente ans trente ans matul li def lu bari mu ngi góor di lekk ba tey heureusement day guddal fanam pour mbokk yi doon wax ne ku bëgg a gis ku dee day dox mooy góor bii jéem a bay tool bi moo tax comme si di mosol da koo góob daf ko jëlee jox mu lekk ba pare mu ne ko tool bi la de tool bi la nga lan lekk nga ba pour moom bosom dafa bokkul ak yi ñu doon dégg bokkul xam nga nag bu man la dem kaneen na man la dem bu jaxasoo ki war a génn leer day day day doon moom moo andi ginnaawam am tegtal yu kenn amul ba pare max bii pour kan ku fi oto bi moom la ñuy gis ak di ka jay di rek moom bi mu oto max bi rasul laay ngay gis boobu moom rek la muy dem bàyyi gina bi pour ñu bañ ko fàtte mu bàyyi a bi dimanche bu ne jógal leen doo ko laaj doo nga xam lay doo mën a fàtte na bi mënul nekk même boo toogee ci tànk bi rek na bi ñëw mhm. kooku mooy kóllëre bu mag ba mooy misaax wa izaa axadnaa miisaakum wa rafa'naa fawqakum turuqu maa aataynakum bi quwwatin wazkuruu maa wii loola kum gagawun ku leer bàngoom ku yarante si nga jaar mais kii mujjal na bi nee na aaya booba lañ ma jëkk a ci alxuraan ba mu daa dem mu tàggoonu ko ba ñu xoolee ci kaw Muhammad ba ca gañuwaar ba mu wàcc na bi xuwaatin waskuru maa wii loola kum gagawun بقوة واذكروا أميرانكم تتقون بقوة واذكروا أميرانكم تتقون بقوة واذكروا Latin was Guru, Lahira la Pumtatao. Latin was Guru. Maskoro, Mahira la Kuntatago, Ilhuatin, Maskoro, Mahira la Kuntatago. gannaawam day am nag bu boobaa bi xuutin téeleen te ak doole te ngeen xalaat li ci biir ndax ngeen moo andi mu naan nee na man seddu wa sum wa sàkkar ba xaji bi tax waa lay sa boo jullee woor joxe asaka dem màkka te ragaloo doo jullit da ngeen xam ne yéenay sëy yéenay jur barke ngërëmal waa ji mën na la yóbbu àjjana te ñun xam nga kan gërëm bañ dem àjjana ko waaye yéen bu leen gaa yi nun amuñu ko beneen bi ngeen jur si doom yu leen noppal suba muy doom bu barkeel kon nu bokkunu bu ñu bu leen toppandoo góor ñi sëy te neexal gaa yi weeru koor sax bépp jigéen bu fexe ba amal boppam kafe ak meew ak mburu mu ñu diw ak ndox mu set jox ko kuwaa mu dogu nga am yoolu ay euh, kii asiyatu ak mariama yaay isa jëndi am bu boobaa góorgóorlu leen ah ñun amoon na loolu xam ñuy neexal ci koor ba boobu nga ne yéen nag bu ngeen neexalee rek ci koor ji di ñëw dina am loolu leen toppatoo café ak yooyu diwu mburu mi daa nga laaj noo bëggee rek bala nga daa defal lu koy kii bu ruusee nekk ko war loru ay màgget yi dañ xaw bari benn bi mu ne bu daggoon weenam togg ko jox bon yonente du waxantu kon nag bu boobaa ngeen góorgóorlu ba xam na góor ak jigéen bokkul ngeen sey jox ko àqam bañ di xool di góor ceeg meloom ngeen di ko toppandoo da ngeen di yàqule da ngeen di yàqule sëy li tax mu yàgg ki war a wàcc na wàcc ki war a boot boot mu yàgg waaye yow mi ñuy boot booy màttaate doo neex a boot mooy waral sëy yi gaaw di tas léegi góorgóorlu leen jëkkër ju bon moo gën faru milliard jëkkër ju yées amul dërëm moo gën faru milliard ndax tànk mu lay bëgg te takku la seytaane ngi yoot bu jaxase seen diggante ngeen mooy yàlla seen diggante araam ndax diggante boo ko xamee day araam nga takk ko boo ko ko see rek waroo ko moo tax ki ëmb ñaar man ngeen ko amee du dëgg de képp koo xam ne dafa ëmb bu bu bu ëmb boobu mënuñu koo may di ko ëmbal de kaneen ne xanaa mais mënu ko takk góor gi laa dégg loolu gis naa ci téere bi ñuy wax bustaanul euh, aarifin nee na ba waajo ñee ne dama takk jabar de waaye dama àndoon ak moom balaa takk bi daf ko ne takk bi nga takk moo gën a araam la ngeen a def bon jigéen doo ko xam takk ko loolu na ngeen xam moo waral jëkkër lu mu yées Morgan gën faru milhar, bokku Tem que eu vou te dar. dem xale yi